kon faaw nga dégg ci biir sawara koo xam ne. da faaw nga gis biir sawara koo xam ni. la mu wax Serigne Abdul Karim moo ko fa yóbbu. waaye ku jégal ay waaye nag ku jégal ay noonam nag. ku ku doon ci moom dara. doo topp sab soppe. sam noonu. dafa jégale rek. dafa jégale rek. waaye lu ne ci àdduna. waaye lu lu ne ci àdduna. ci ci aw yiw. teg nañ ah? teg nañ ko ci daram bi. teg nañ ko ci daram bi. waaye safaan boo dégg nag. waaye safaan boo dégg nag. teg nañ ko ci daram bi. waaye moom bu doon bu doon yor dara ci ay ñaawteef. moom bu doon yor dara ci ay ñaawteef. kon seet na wecc. kon seet na wecc moom. ndax waxi nit ñi dem ndax waxi nit ñi dem si Karim. Ah, bu la dara taxoon. bu la dara taxoon. seet na seet na. waaye saa borom baax na la. waaye suñu borom baaxee na la nag. fa nga jógee. fa nga jógee. kenn du fa jógee. kenn du fa jógee. daray safaan di tax ci yow. daray safaan di tax ci yow. loolu de loolu de mbàkk loolu nga ba loolu la baaxee. mbàkk yi loolu de lañ la baaxee. sëriñ lu mi toog. sëriñ Fallou mi toog. ak rakam yu baax yii. la sa liggéey wajur nga xam ne ñoom rek la nekkal ci liggéeyu seen wajur wu tedd wii. di sa maam ja di sa maam ndax liggéey bii kat liggéeyu Serigne Touba la. kii fi nekk. kii fi lim doon ci sëriñ lim nga ci doon. ñu tàmbalee ko ci jëwriñu Serigne Fallou Mbacké. ñu tàmbalee ko ci jëwriñu Serigne Fallou Mbacké ja nag. Serigne Abo Mbacké moom Serigne fallu waxtu wu ne. noo ngi dégg sa kaddu. xam nga nangu nangu nangu gi nga nangu. xam nga nongo gi nga nangu. mën naa loolu ko defoon ci yëfër yi itam. loolu ku ko defoon ci yëfër yi itam. way weddi ya way weddi ya. faw nga raw ca faw nag nga raw ca. waaw nangu gi nga nangul sa kilifa yi. waaye nangu gi yow mii nangu gi nga nangul sa kilifa yii. li ëpp jotaay yi. li ëpp jotaay yi. noo ngi koy gis. noo ngi koy gis. nga di ko teewal say kilifa. nga di ko teew ci say kilifa. koo ci teewal ku ne rek. koo ci teewal ku ne rek. ku ci teg bëtam ku ne. ku ci teg bëtam ku ne. ca boobee jotaay. ca boobee jotaay. yeesaat na peq. bu fekkee ci ñu baax ñi. bu fekkee kookee bu fekkee ci baax ñu baax ñi ci la bokk. ci la bokk. loolu sëriñ loolu sëriñ Abdul Karim. du luñ la beral. du luñ la beral. du luñ la sosal. du yaa ko wane ba noppi def ba noppi. nag wane ko. ndax na ko waxee. ndax na nga ko waxee. jotaay buñ la xool. jotaay buñ la xool. nga sa kilifa. nga toog ak sa kilifa. melokaan la nga wax bañ dégg ko. la nga wax bañ dégg ko. buñ nee jàkk ceew. jàkk ceew. noona ngay noona ngay mel. wax rek na yomb na. wax rek nag yomb na nag. waaye jëfe la nga wax nag. waaye jëfe la nga wax nag. fi la ñu baax ñëpp rawante. kon jëwriñ ji toogul toog di sëriñ Fallilu. mi ngi lay siyaare. mu ngi lay nuyu. mi ngi lay nuyu. mi ngi lay sant. mi ngi lay gërëm. ci turu kilifaam yëpp. fi ma jaar rek. ku ma joxoon kàddu gi wax loola. ku ma fi ma waxee rek ngay waxee. li waxit li ma waxit li ngay wax dong. liggéey bii nu nekk nag ñun waa kër Cheikh Ibrahima Fall. ak jàll. mboo ak mboolem yi jàll. sa lépp nga ngi ci. jëfe nga ci nekk. jëfe nga ci nekk. waxee nga ci nekk. waxee nga nu nekk. te loolu nag. te loolu nag. ko seere. nag. fii nga jaar. fii nga jaar. day buntu bi ci yow. day buntu bi ci yow. yaa ko def nag muy sa buntu nag. boo jaaree Serigne Fallou. boo jaaree Serigne Fallou. dajal dajal nga. ndax mooy jëwriñ jëwriñ buntu kër yëpp. mooy jëwriñ yëpp. kër gu sëñ Fall gu sëñ Fall dem rek. mooy taawu kër mooy taawu kër ga. taawu baay nag. taawu baay nag. sëñ sëñ Fallilu. lu waay def ci kër baayam. lu waay def ci kër baayam. moom la ko defal moom la ko defal. te mooy taawu kër yëpp. te mooy taawu kër yëpp. kon lu waay def ci yoon wi. te kon nag lu waay def ci yoon wii. kër Seera Fall gii. jaare ko sëñ Fallilu. jaare ko sëriñ Fallilu. dajal nga. dajal nga. kan nangu. ak gantu. dajal nga kat. ñoo ngi ñaan suñu borom. ñoo ngi ñaan suñu borom. nga xam ne ñun ñii nga xam ne suñu yaakaar jépp ci Serap Fall la ne. lii sëg bëgg sëriñ Abdul Karim. yàlla na nga ko am. ci barkeb sëriñ Fallilu. ñaan gu rafet njortu la. nee ñaan googu ñu ñaan kat ñaan gu rafet njortu la. xanaa ñi amul xam sax. xanaa xanaa xam sax. waaye ñoo ngi jort ne. waaye ñoo ngi jort ne. li li nga bëgg am nga ko. ci adduna mii. ci adduna mi te fa ca des moom. te des la ko fagul. des la ko fagul. kon jërëjëf Mbacke. kon nag jërëjëf Mbacke. ñëw gi nga ñëw. ñëw gii nga ñëw. murid yëpp bëgg. murid yëpp bëgg. murit yëpp a ci bëgg. yëpp a rawatina ñun ñii nga xam ne. suñ yaakaar yëpp mooy serafal. ñun sa tur wii moo nu neex ci ñun. ñi la turu serafal neexee. léebu nga làkk nga làkk nga. <laughs> nu ne wax nga ko. bëgg ñu xam ne ku sepp Serapha la ngi. nii. waaye ñun itam. waaye ñun ñu waaye ñun nii kat looloo ñu dal ci yow de. lu ne ñun lu ne ñun nit ñu ngi koy def di ko wax. ndax bëgg. nga xam ne say soppe la. nga xam ne say soppe la nu. sa waa yi sax. sa waa kër yi sax. léeg-léeg day am koo xam am léeg-day bu la nuyoo. lan ma cay tegal lan ma cay tegal. sama digg ak sama digg ak yow. boo demee ko. du ko defee ma ne ko. am nga sëriñ ci. am nga sëriñ ci. boo demee ne boo demee ne ko. Moustapha Falilou Fall. Moustapha Falilou Aminta. nuyu na la nuyu na la. turu ci turu kilifaam nag. boo waxee Seydou boo waxee Seydou lool rek. am nga sëriñ ci yow. nga sëriñ ci te dëgg la nag. te dëgg la nag kat. daa daa am loo xam ne déggu leen ko woon yéen. damaa ñëw nuyu ko fa mu toog ne ko. damaa ñëw nuyu ca dara ga laa jógee. bis bu ne nag borom la nag. waaye du taxaw. mu ne ma yow. mu ne ma yow. <laughs> ma ne waaw. ma ne waaw. ma ne ko ci dara ga laa ma ne ko dara ga kay. mu ne kon moom bu dem daral. ma ne kon ah man de kon bu subaa ma it ma dem daral. <laughs> ginnaaw weesoo koo dem daral. <laughs> ginnaaw yow ko sëñ bu weesoo koo dem daral. man man mii weesoo ko damay weesoo dem daral man. ginnaaw damay damay liggéeyal sëñ Tuubaa rek. ginnaaw man damay rek. waaye nam ko waxee woon na ko defee. waaye nam ko waxee woon na la ko na kon daal ñun Mbàkke ñi ngi sant tey gërëm. waaye ñun murid yi. ñooy sant toujours Sëriñ Fallilu. ci turu Sëriñ Fallilu. di ñaan nga ñaanalal nu ko. di ñaan nga ñaanalal nu ko. goo xam ne. ku doon ci moom dara rek. ku ànd nga ci ànd na fi yàgg. na wér. na man bu ko dara dara dogale. bu ku ko xaar moom mii yàlla na xaddi. lii ay bëggam moom mii yàlla na am rek. ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu ci daraje Serigne Fallou Mbacke sa way jur wa. na loolu yi am rek. jërëjëf. Soxna yi sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu bu baax. nee na tey jii daa siyaare si woon mbokkam yu baax yi. waaye siyaar bi nag. dama fee ñëwoon. andi ab yóbbante boo xam ne dama bëgg mankat kat ñu yóbbaaleel ma ko ndax mankat ba ma xamee ne ñoom seen ab yóbbante day yegg ma bëgg man nag dugal ci sama yóbbante ndax ndax bis bu ma taxawee. ñuy yebbi seeni yóbbante. ñuy yebbi seen yóbbante. ñu naa ah sëñ Abdou Karim kat. lii yaa nu ko yóbbante woon. am bu boobaa. bu fekkoon ma am dara it. da koy gën a sakkanal rek. moo tax. ma ñëwoon tey jii. ndax liggéey bu mel nii awma sañ-sañ toog rek di ko dégg te ak ma ci nee na loolu man sama fit ñëwu ko sax nag moo tax ma ñëw fii tey nee na sëriñ bi nee na mi ngi leen di jox yóbbante bi nag ndax ndax sëriñ Fallou yàlla yeewoon maam ndax ni yàlla yeewoon maam seex Ibrahima Fall ci Serigne Touba. noonu la ci yeewoon sëriñ Fallou. ñoom nag. ñoom ñii laa wax. jàpp nañ nag ne. jàpp nañ nag ne. maa nee na mi ngi jégalu baat bi de. a muus ñëpp. ñoom kat jàpp nañ ñoo gën a muus ñëpp. waaye. waaye. waaye yàlla yeegi maam Cheikh Ibrahima Fall ci Serigne noonu la ci yeewoon Serigne Fall. noonu yi nag la ci yeewoon Serigne Fallu nag. ndax sëriñ Fallou dafa lam wax sëñ Touba dane ko njuréel gi dox suñ diggante jaay naa la ko jënde ko ak taalibe loolu ku yàlla yee rek moo ko man nee na loolee nag man dompal na ma ci aslëf nee na sëriñ Fall na loolu dompal na ma ci aslëf yéen nag bu ngeen gisee ngeen mel nii ngeen mel yee ga yàlla yeewoon seex Ibrahima Fall ci Serigne Touba. maam seex da yéen da leen a jox lépp. moo tax. ngeen mel nii ngeen mel. mane ko it ni ngeen ko mane. loolu. jox gi leen maam seex jox lépp a tax. xam ngeen ni nii ngeen di doxe ku yor lépp moo ko mën. kon nag. ñëw naa fi ngir barkeelu si ak ngir ngeen yóbbaaleel ma sama yóbbal samay bagaas ku say bagaas di yegg kat ku ci boole ay bagaasam dana yegg jërëjëf sëriñ bi nee na day wax nag ni koo dégg ñu naan murit saadix la nga dem nga gisoo muy dox doxinu maam Cheikh. gisoo muy murit saadix ga dañ ko ko jiiñ rek waaye amu ko moom waa rajo mm. loolu waa rajo yi dégg nañ ko waa téléphone yi dégg nañ ko ndax yow sëñ Moustapha moo wax loolu. sëriñ Fallou sëriñ bi nee na li doonoon ay tànkam tey. mooy loolu rek. siyaare si leen. ci liggéey bi. toog naa ba ñemeetuma toog. ma ne ah, tey jii nag moom naa daal di jóg moom. waaw nee na nee sëriñ Moustapha nee waxtu ne jëfa ngi fi jëfi sëñ Abdou Karim mi ngi fi xanaa jëmm ji rek la bëgg a indi sëñ bi nag euh, taalibe yi sax ci jotaay bi waaw waaw waaw dégg sëriñ Fallou nee ma wax ni ma wax sëriñ bi ne ko moom sëriñ Abdou Karim Mbacke mii hmm. li ko tax a xëyee tey jii ndindi. ci kër sëñ fallu Mbacke googee. ngir ñëw tey jii kër maam Cheikh Ibrahima hmm. li ko fi taxoon a ñëw. am na ko. loolu moom am na ko. ñëpp ñëpp hmm? sëriñ bi sëriñ Fallou nee na waajuram bu baax wa. di sangam ba. ñu bari dañuy wax ne. ñaar ñaar la dama dégg koo xam ne da koo ñetteel. dañ ne dañ ne sëñ Fallu nee na. Seera nee na. ñett day ñoo ko doy. ci lii. bu dee ab sëriñ sëriñ Tuubaa rekk ko ci doy. Hmm. bu dee ak muñ. suuf rekk ko ci doy. bu dee ak taalibe bàyyam Seera Faal rek ci doy sëriñ Fallu Mbàkke ma wax loolu hmm. bu dee sëriñ Fallu dane bu dee ab sëriñ sëriñ Tuubaa ma ci doy bu dee ak muñ suuf mii rek moo ma ci doy muñam gi bu dee ak taalibe nag bàyyam seexar Fall ko ci doy li nga wax la ko nangul nee na li mu wax li sëñ Fall wax nee na la ko nangul ndax ñëpp a dégg ni ndax ñëpp a dégg ni ñaari moom ñëpp ko ñaari ñaari ko dégg muy muñu suuf ak taalibe Cheikh Rafal. ak taalibe ak Cheikh waaye sëriñ bi mu ci ñambaas nag. waaye sëriñ bi mu ci ñëpp nangu na sëñ Tuubaa ko doy. ñu ñëpp nangu nañ ne sëñ Fallu sëñ Tuubaa ko doy. donc <laughs> bu ko la bu ko waxoon. waxee. waaw loolu sëriñ bi sëriñ Fallu nee mi ngi lay seereel nii. Hmm. fu mën a nekk day. ñu xam nga xam ne yow rek lañ fa nekkal. ndax ñun fa suñ nekk sëñ Tuubaa lañ fa nekkal. te yaa fi sëñ ndax kii fi nekkal sëriñ Tuubaa. di sëriñ Moussa wax ci moom. yéen a bokk sëriñ Tuubaa. lim ci doon rek nga ci doon. day day loo xam ne lislaam ko santaane. muy cër bu ñuy joxe. waaye bu mu ci am rek. am nga ko ci. jërëjëf Fall nee na sëriñ bi nee na mi ngi sant tey gërëm bu baax a baax a baax nee na murid yëpp ñi maase nañ di ñaan saa boroom mi nga xam ne moo am lépp man lépp sañ lépp mu yàggal la fi te wéral la waaw na maase tàllal sëriñ bi nee na yàlla yàlla doole faj aajo yi nee na li sëriñ Moustapha Mbar wax te nga yàgg fi te wér nee na yàlla na ko yàlla def barke Sëñ Abdou Borom la bi ba Sëñ <laughs> Abdou Samad barke Sëñ Abdoulaye Ba barke Sëñ Abdou Ndar barke Sëñ Abdou Sall barke Sëñ Saliou barke Sëñ Sall barke Sëñ Sall barke Sëñ Sall barke Sëñ Sall barke képp ku ma fi liggéeyal yàlla liggéey bu ma amiin